asalaamaaleykum euh, mbokku internetu Sénégal ñu dellusiwaat euh, fii ci euh, Wakaam di fi waxtaan ak benn kilifa sëñ Modou Bousso Dieng boo xamante ni doomu réew mi la mi waxtaan ak moom ci actualité réew mi parce que Sénégal jamono yi ñu toll dañu dund ci ay crises yu bëree bëri bëri yu méttee métti métti yoo xam ni mën nañ bépp sénégalais dund nga ko ba ci sa biir xol ba mu métti lool lool bokk na ci li nga xamante ni nii mooy euh, euh, liñ ko comme ni nga corona géej bi comme ni ko ni ko presse bi di waxee xaalis boo xam ni dañ ko dajale woon pour euh, askan wi faju ci askan wi dund ci mu am as. pàcc su ndaw soo xam ni ñoo ko jël di ko tong-tongee beneen bi tam mooy euh, ci wàllu impunité bi nga xam te ni dafa bëri ci Sénégal parce que euh, ñu bëri nee nañu bu fekkee ne da nga bokk ci nguur gi dara du la ca fekk ak loo mën a def mais boo bokk ci làngu nguur gi moom faw yar bi dal la beneen bi tam mooy li nga xam te mooy euh, préférence nationale dinañ ci ñëw ndaxte ci wàllu xam-xam ak ci wàllu koom-koom Sénégal daf ci am lu baree bari mën ci lu bari ba pare Sénégal nag wala bokk autorité sénégalaise dañu tàmm di jéggaane euh, loo xam te nii dañ ko dañ koy dañuy dem di ko jéggaane bitim réew te am na ci biir réew mi te ay doomu sénégalais rek ñoo koy def te mën ko lool xarañ ci. léegi nag euh, sëñ Modou ñu ngi lay nuyu euh, di la gërëm ci ni ñu nangulee interview bi fii ci sa biir kër asalaamaaleykum. maaleykum salaam El yow namm naa la de maa bàyyi fan yi maa ngi lay nuyu di ziar di mbokk di ziar euh, waa Sénégal yëpp ak suñu euh, mbokk yi ñuy suivre ci Sénégal yëpp di rafetlu ñëw bi vraiment vous avez posé plusieurs questions yu am am solo ci dund réew mi defe naa ma tàmbulee ci euh, Cour des comptes effectivement Cour des comptes benn benn Cour de contrôle la boo xam ne élite la ci biir Cour des comptes ñoom seen rapport day servir plus que enquête préliminaire parce que seen rapport dafa am valeur juridique enquête préliminaire sax le procureur n'est pas lié le juge n'est mais cour des comptes moom obligatoirement dafa war a am dafa war a am suivi dafa war a am réaction malheureusement euh, ci Sénégal gis nañ loolu nag ci Macky Sall la gën a tare c'était le cas pour tout le monde ca ca Diouf Wade ba ci Macky mais ci makki la gën a grave parce que Macky moom ce sont des vraiment des des des mën naa tuddee des de col blanc ñoo xam ne ay voyous lañ connu yoo xam ne loo mën a def boo ñëwee ci wetam buñ la épinglé y mais sëñ bi yaakaar ngeen ko recommandation bi Cour des comptes def euh, président di ci bii mun na am wuute parce que bii nag je pense que le peuple va faire effet nañ def différence bii de. parce que maintenant nag yëf yi dafa dafa dafa day bëgg day bëgg a day bëgg a métti ëpp surtout su àggee ci nag corona temps corona nit ñi dee nit ñi sonn ñu tëj réew mi économie nekk un pour cent ku nettal sa bopp ñu ne corona ndekete yootee Cour des comptes na sama gars yi ñu ko doon wal di ko yokk di yokk cas grave di yokk nombre de morts di yokk nombre de cas par jour kon li ma ci metti bari na parce que jox na raison ñu ne woon corona du dëgg te man damaa bokkoon ci ñi doon xeex biir Touba ngir ne corona dëgg la damaa bokkoon ci biir Touba ñi doon distribuer ay masques ci sama xaalis di dund ay téeméeri junniy masques di séddale. maa ngi koy fàttali. yaa ngi koy fàttali ko El Hadj di di leen gëmloo par la force neen li dëgg la ñii di ma ci weddi dem ba ñëpp gëm ma ci kon suñ demee ba ne ma dañ ko doon yokk ba ñooñu am ci man dëkk ah tooñ nañ Sénégal yëpp mais man tooñ nañ nañ ma it nag parce que ça c'est xam nga. mun naa xam nit bu di mais état en tant que structure su ñu nee c'est c'est c'est tout un ministère le docteur de la santé le ministre le le le ñoom ñoo doon wax loolu ak ni corona sérieux partout ci àdduna ay jàmbur def ci xaalis ay nation def ci xaalis sénégalais lambda simple def ci xaalis ce sont des criminels si c'est avéré si c'est que la cour du compte wax wax dëgg la ah non non non ça nécessite une réaction rigoureuse et immédiate et maintenant amul lu ñuy xaar dëgg yàlla foofu rek gis nañ fi rakku wala magu jabaru njiitu réew mi gis naa fuñ bind ne am na ñaari milliards ak nangam yoo xam ne ci la bokk moom tamit waa moom it moom il est intouchable il n'est moom inquiétude ci moom il fait ce qu'il veut il le fait ni mu ko bëggee mais kenn du nga loolu xanaa gàcce la ci njiitu bokk Khalifa Sall rakku ja rakku jabaru jàmbur la woon tam hmm. rakku jàmbur la magu jàmbur la baayu jàmbur la doomu jàmbur la nga jël tëj ci un milliard et kii am fu ñu bind ne deux milliards et mais il n'est pas inquiété arrogance bu mat sëkk la ci àndal reculé wul amul problème parce que xam na ne mooy goro mooy magu la tout puissante jabaru président fan république sénégalaise ak ni république ma c'est sérieux ni république ma état en tant que structure a été toujours sérieux, est toujours fort. Mais cette fois-ci, il un homme qui s'appelle Macky Sall qui le dirige avec sa famille, avec ses goros, non, sont intouchables. ñi des nag justice applicable na ci ñoom ils sont euh, justiciables mais ñi ci des moom non non non non doo laal les bandits de de col blanc aussi ku ci nangu ne troisième mandat day am non kenn du la laal non loolu je pense qu'il peut. Euh, beneen bi mooy euh, la préférence nationale. parce que Sénégal am na wala boog euh, ci biir réew mi am na ay Sénégalais yoo xam ne nii dañuy ñëw wane seen ngëdd seen euh, gëdd wane seen jàng wane seen xam-xam et pourtant li ci ëpp dañuy dem ji jéggaani bitim réew loo xam te nii am na fii ci Sénégal surtout ci wàllu matière grise. woy bu ma déggee barki démb ab association bu ñu fal defe naa par exemple ay selo lañ teg ci bopp bi ñu ne ñoom. Mm, euh, cinquante pour cent de préférence nationale la ñu laaj loolu xanaa njiitu réew mi ak gouvernement war nañ ci am gàcce soo demee ba say doomi réew taxaw di laaj laajuñu cent pour cent laajuñu quatre vingt dix pour cent laajuñu quatre vingt pour cent di laaj pour cent xanaa xanaa war nga am kersa te ñooñu doone dañoo am problème compétence parce que Ecotra boobu moom mi ngi liggéey ba Dubaï. les pays les plus les plus développés dix mille fois euh, euh, Sénégal suñ fekkee ne kon sur le plan compétence la kon le problème compétence moom moo posé su dee su dee côté qualité wu liggéey mais terre bi plus de mille milliards jox ko entreprise fa ay entreprise tubaab terre baa ngi ni bu dawee tuuti paan xanaa foofu la ñàkk qualité yam donc ma yaakaar ne ku ne yow da ngay def social sociale du génne xaalis Covid jox ko sa magu jabar ñu tuumaa ko ca ne moo ca lekk nga dëgg ci sa tànk loolu social social mooy chef d'entreprise yii fi nekk moo tax Macky Sall a un problème avec la jeunesse sénégalaise parce que parce que xale yi liggéeyuñu est-ce que def nga ne entreprise tubaab yi fi am 80 pour cent marché yi ñoom ñooy ñëw di jël sénégalais non il préfère ba mu jël benn machine mu liggéey leen à la place ñu dem recruter benn xale wala ñaari xale donc ñoom ñooy muucu deru sénégalais bi économie sénégalais bi ak pétrole bi yëpp jël yóbbu ci biti su ko defee ñii fi nekk de ay doomi réew mi jël ci doomi réew mi di fay plus de cinq cent millions de francs CFA je prends Ecotra boobu nga xam ne si am naa ci tuuti idée cinq cent millions de francs CFA par weer di ko fay ay cadre di ko fay plus de mille et quelques personnes yi lay liggéeyal xaalis bi des ci réew mi maanaam nit ñi di jot te nga ne yow da def social préféré woo appuyer foofu pour que social boobu jàll mais da nga appuyer génne ay projet ngir mën a génne xaalis pour jox ay nit ñu enrichi wu ci bés baa leen communauté mouride bi exemple sëriñ si maa ngi leen di ñaan ñu wax parce que am na ci ñoo xam ne ay doomi Touba lañu di taalibe sëriñ Touba barabu sëñ Fallou kan moo ko defar des centaines de millions de francs CFA Ablaye Sylla boobu ma tuddu mais bu nekk ci jafe-jafe ñooñu sëriñ si te du moom rek waxaale naa cinquante entreprise yëpp ak ñeneen ñu bokk la si entreprise yi te ñii di suñ mbokki tijaan ñii di suñ mbokki leneen ñii di suñ mbokki di ay jullit ñii suñ mbokki chrétien mais l'essentiel ñu ay sénégalais te liñ am lépp ñu koy génne di ko def ci biir dëkk yooyu ma defe na ñoom it kilifa yooyu am nañ responsabilité bu doo ci taabal ci pour demander que ñu jàppale ñooñu parce que même ñooñu bu ñu woon ay sax ay croyants même na maanaam nekk ay sénégale te li leen di fay mais sénégalais ñu koy liggéey loo waat kañ la ñuy arrêté jël économie sénégalais bi jël barke maam yi fi nekkoon di ko jox ay tubaab loolu Macky la ko fi mas a def jusqu'à ce que ces entreprises se révoltent pour demander ñaata xaaj France est-ce que dina jox Afrique xaaj est-ce que Europe dañu fa jox Afrique xaaj doo ko fa dégg c'est honteux donc bi ñu toppaat mooy euh, man personnellement je porte ce combat dinaa gisante xalif généraux yëpp kenn ku ci nekk waxtaan naa yow ba nga may ma bés ngir ma gis la loolu mooy doon suma combat incha allahu karim parce que même tey les leaders politiques kenn ku ci nekk mais war nga wax sa programme ci préférence nationale soo yéegee parce que loolu dañ ko war a constitutionnaliser. sëñ bi xanaa dañ ci am entreprise ah. barki alxuraan aw ma entreprise barki alxuraan xaw ma leen Ablaye Sylla boobu de la muy def Touba moom dégg naa ko gis naa ko yi terrain parce que man damay damay def social benn yoon laa commencé teg bët barki alxuraan ñu ne ma kii la c'est que su may wax nag di développer il faut ma tudd kenn pour donner exemple comprendre aw ma société benn. mënuñ maa épingle ci dara mosuñ maa jox marché ci dara mosumaa laaj marché ci dara sama tur figuré wul fenn. doo donc li nga doon citoyen moo tax ngay yëkk sa kàddu. damay xeex pour la jeunesse entreprise yii bu ñu liggéeyul jeunesse bu ñu amul marché maanaam jeunesse bi duñ liggéey. mais euh, nguur gi euh, ci wàllu euh, jeunesse liñ ci jot a réaliser mooy xëyi ndaw ñi defar ay pavage ak i bale mbedd mi. wala da xam leneen yow. déet boo xam leneen man de loolu lool sax <laughs> buñ ko mënoon jox tubaab yi jox ko te loolu dina arrêté parce que pavage yi moom dina arrêté parce que entreprise yi koy def nii non c'est grave waa léegi pourquoi ñu war a jël économie bii di ko yóbbu France nga defee ne terre bi amul benn entreprise sénégalaise bu ko man autoroute Ila Touba ah, nga defee ne benn entreprise sénégalaise munu ko Macky Sall yëpp français yi donc mais boo fi nekk préfet. oui sëñ bi ku la lebal xaalis kat wax la ne la dugal ko fi mais ku la lebal benn nga fee ko junni mu mucc sa deret forcé la ko. nga nangu njaam dem sa yoon ça doit s'arrêter sa sa manager jeunesse continuer taux de sommation bi di yokk maanaam man taux de chômage bi di yokk nu mu gën a gaawee. sëñ bi tam xam nga entreprise étrangère yi wala boog réew tubaab bi bu ñu la dee lebal xaalis dañ ci boole ak seeni société yi liggéey parce que boo da ko lebal ma ngir ma def train mën la am naa ñu ko def jëlal entreprise bi yóbbaale. pourquoi ça mais loolu parce que dañ lay fekk yow ñu yab la yow mi ngi koy defloo defloo ñu ko ñëpp ce n'est pas tout le monde kenn ñaar lañ fi jàpp Macky Sall ak Ouattara jamais keneen un panafricaniste un patriote un nationaliste mais jamais tubaab yee daw ci seen ginnaaw parce que Sénégal dafa pétrole bu ñu amoon un paysan crédible digne d'un bon Sénégalais pour faire face mais écoutez euh, France du yàpp ne joxal entreprise soo ne entreprise nga ba fa entreprise ba yow jël ci sa xaalis nous avons plus de six mille milliards mais jox entreprise nationale mu liggéey j'interpelle les leaders politiques nañ wax préférence nationale bi ñaata la ñuy am seen programme nañ ko wax Sénégalais yi dégg ko parce que bu dul loolu xale yi bombe à retardement lañ te ñiy fay plus de 500 millions bu ko deful ci réew mi xaalis boobu fam doon dem dina fa feeñ moo tax moo tax dëkk bi metti xale ñoo doon jël ñu liggéey duñ ko def su boobaa dëkk bi dina tàkk parce que xale yi il ñu am lu ñu liggéey bi toppaat mooy suñu ressources yi ñu basé à la France kañ la ñuy développé donc lii laa interpellé ñëpp. bëggit constitution bi ñu dugal ci loolu ba préférence nationale bi am seen wàll Sénégal yi fi liggéey yëpp mais bénéfice ci ci richesse Sénégal mais Sénégal daal dëkk bu riche la mais ñun ñu continuer ndóol rek kon jëm kanam parce que quoi parce que nous avons un président qui représente la France au lieu de représenter te Sénégal jël biens yi di jox Sénégal entreprise nationale yi nga xam ne si ils sont capables même de construire la France nga jël leen nga jël leen dëgg leen tànk surtout ñun mbokk taalibe bi nga xam ne Touba bariwul liggéey ñun bu ñu amee chef d'entreprise bu mel ne Abdoulaye Sylla di fa def la lam fay def tabax ay barabu sëriñ yoo xam ne demande communauté bi yëpp la woon ah mais au-delà wu sa casquette mouride wala leneen nekk doomu sénégalais buy jël buy jël ay xale di fay plus de 2000 personnes de beneen entreprise yi des def ko ba ñuy 50 entreprise ak yeneen entreprise yu bokkul ci association boobu ñooñu boo xañee marché réew mi te nga ba noppi nga ne da bëgg réew mi mais du dëgg voilà sama yuuxu te dama bëgg nag mu nekk combat boo xam ne sëriñ si dañ ci wax parce que am nañ ci intérêt kenn ku ci nekk chef d'entreprise yi màggal fa nga dëkk am foofu sëriñ da fay jël muy màggal muy gàmm muy xew bu man doon dem dimbali communauté ba dimbali dëkk ba te dëkk yi ci ëpp dafa bari chômeur dëkk bu ci ëpp social bi dafa terrible ñooñu ñoo def vrai social kon su fekkee ne yow ñiy def vrai social da nga leen bloqué jox tubaab yi seen place ba noppi yow génnewaat ay junni milliards ci li nga am ne dangay def sociale jox ko kenn kooku ñu épinglé ko mu lekk ko nga dëgg ci ba noppi justice bi topp journaliste yi jàpp ko tëj ak achat naw ci seen kaw mais les vrais bandits de col blanc yi mu fi def askan bi bokk ci yow naan la troisième mandat nga gëmm ça doit s'arrêter